wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisaa jisaay bi ngeen xam ni lu rëy xew na loolu moo lan mooy bés bi nga xamante ni mooy journée culturelle bi nga xamante ni dañ koy amalal maam Cheikh Issa Diène euh, fii ci Ndakaaru mu war a am nag dimanche euh, le 28 euh, janvier ta ñu amal ko nag ci ndigalal la Serigne Mountakhal Bassir waaye tamit ci kilifteefu Serigne Abdou Latif janna xalifa maam Cheikh Issa Diène ak mboolem ay rakam waaye tamit ay doomam ak diine waaye taalibe yi ak seexi maam Seex Isaa Jeen yi eh, bi di jàmm bis bi daal eh, góor jigéen mag ndaw ñu ngi ci woo ñëpp na am jaaraama ma doroyukaay moo man moo sellal moo jarataas moo moo man moo sellal moo rëy ngor ta moo doy waar moo am xaas jeeg yépp xandeer lañu boot moo am bool am diine rafet melokaan yar say doom am jàmm sawarte du tooñ raw sa tuur baale xel asamaan daawul tiit sang njàmbaara tax nga xam sang maandoo waral borom saam an mam daam def jant yu fekk duniyaa not ay weer ab xaayaan la yaa Touba Mbacké waaw damaa ñëwoon pour magal si waaw damaa ñëwoon pour magal si wax dëgg yàlla ñëw pour siyaar waaw masha Allah wax dëgg yàlla Porokhane moom neex na loolu wax dëgg yàlla yàgg nañ ko teewe mais ren moom dafa mel day chaque année day gën a neex day gën a tawfeexe di ñaan yàlla képp nga xamante jóg nga pour ñëw fi rek yàlla defal la jàmm defal la lépp li ngay sàkku yàlla defal ko barke borom Touba. ba yu yoon bi ba a amul benn jafe-jafe wax dëgg yàlla waaw macha allah chaque année dañ fiy ñëw lu met ay juróom-ñaari at juróom-ñetti at chaque année oto lañ fi indi mais wax dëgg yàlla chaque année day gën a yàlla macha allah. Euh, at yi jàll wut naa Porokhane yi dañ bi ah. waaw non bu moom macha allah wax dëgg yàlla bu moom nit ñi bari naan macha allah taw feexe na loolu wax dëgg yàlla di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm rek képp ko xam ne jóg nga fi la nga fi sàkku yàlla defal la ko rek barke borom Tuubaa métti gi ak maanaam coono bi ñu laaj ba xam loolu ban yëg-yëg nga si am waaw métti gi gi moom métti gi daanaka duñu ko yëg ndax booy xool fi mu tol tembe ne li fi daje lépp fi mu ne ay xéwal dong ak sàkku ndimbal ak xéwal ak barkeeb soxna si moo leen yëkkati ba ñu ñëw fi mu toll tembe nii jàmm ak xewal dong la fi nit ñi séentu ak ak yokku te itam dinañ ko fi am bu soobe yàlla ak yonent bi. foo foo foo foo jógee. maa nga jóge ba dëkk bu ñuy wax njaar ga pooleek ci Lambaay fa laa jógee ànd ak sama benn doom bi nii ñëw fekk ko Touba ñu ànd ñëw ci màggal gi. waaw lépp rek ngir yàlla ak bëgg lu baax rek moo la waaw. lan ngay lan lan ngay conseillé xale di sa ñoom xale yi li ma leen di conseillé mooy nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax rek sax ci njub te def njub wax njub di def njub waaw loo moomut nga bàyyi ko fa ndax fi mu toll tembe am na ci ñoo xam na ñii daanaka mooy li gone yi wax mooy loolu mooy loolu yal na yàlla saxal leen ci njub ci barkeb soxna si rek ku mel weneen melokaan woo xam ne bokkut ak ak ak jub yal na la yàlla walbati ba nga jub ci barke sëñ Tuubaa léegi lan ngay lan ngay lan ngay yedd soxna kii euh, soxna suñu bokk soxna yi yi nga xam ne pour nan ñuy def ba roy soxna si soxna jaara waaw soxna si de moom moom moom ku ne dégg na li mu moom liñ naa noppam ak borom ba ku ne dégg na fi mu jaar baam li mu am kon doole sant yàlla jii ma roy ci moom mama ñu lay siyaar ah waaw ñoo ngi gannaaw bañ sant yàlla jublu ci yónnant bi di sant sëñ Muntaxa bu baax a baax a baax na ñaanal ko mu ànd ak wér ñoo ngi sant euh, ñun Touba Mbacke lañ jógee di dabu si fii soxna jaara waaw ci ay ngërëmam ak yok euh, di fi ñaan ak yokkute ak suñu gog njaboot ak mu jullit rek di ñaanalal mbokk jullit yëpp rek waaye sant nañu nag sant na ñun waa murit ñun waa kër Serigne Touba sant nañ bu baax a baax a baax a baax sant nañ soxna jaara ndax lii lépp moo ko waral waaw wasalaam ban jafe-jafe nga am si yoon bi ah amuñu benn jafe-jafe alhamdulilahi rabbi alamin duggee nañu ak jàmm yegg seeg jàmm amuñu benn jafe-jafe benn jafe-jafe amuñu ko lekk nañ ba suur naan nañ ba man te dara xewagut xanaa poroxaan poroxaan yi jàll na xanaa wut naa yu poroxaan yi njëkkee xam ne ah, coono yi métti bee daj li nga ci yoon bi loolu daa mel daa mel loolu jeex na léegi xanaa waaw léegi de loolu moom yàlla jeexal na ko fi moom loolu moom yàlla jëlee na ko fi moom loolu moom yàlla jëlee na ko fi ne alhamdulilahi rabil alamin yëpp ak xéewal la lépp xéewal la lépp xéewal la lan ngay conseillé sa mbokk sa mbokk soxna yi ah xanaa gën a góorgóorlu rek te roy si soxna jaara gën a góorgóorlu rek te ne ci ndigal li nag ne ci ndigal li ñun ñoom ci ndigal ñun ñii ñun ñi tey la fi suñ ñaari at yoo xamante ne nii daaw lañ jënd daaw lañ fi jënd kër defar ko kër gaa nga fee ca petu pom pom ba waaw ñun jigéen ñi ñoo ànd ak suñ gone yi takkaay yu jënd ko ba defar ko ñoo ngi fay màggalee macha allah waaw tey ñaan rek ñu mu gën a yokku ak wér ak wérle ak mboolem jullit nag bu fi daje ca kaw ca kanam rek. doona naa sant rek kontaan xol yi sedd nañ guy ñi ñaan rek ñu taas ci barkeem baax a baax a baax. lépp lu fi waay ñaan rek yal na nga ko yàlla fayal la ko soxna jaara nangu ko borom Touba. fan nga jógee ñëw fii. man Touba. waaw Touba nga jógee yoon bi ba méttiwul rek. yoon bi déedéet ndax soxna jaara def na ci ñaan macha allah. Mm-hmm. ba amuñu benn jafe-jafe rek. déedéet benn jafe nag ñu ngi sant bu baax di wax daal yal nañ fekkee at yu bëree bëree bëri. baax na ko sa mbokk soxna ya xanaa ñu góorgóorlu rek. rek def ni soxna jaara rek ku ko man góorgóorlu ñu roy ko bu baax a baax buñ mënul ñu jéem rek bu baax a baax rek ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jaa jàmm. baax rek am mbégte kontaante bii bi doog a ñëw muy suñ première yoon ñaanaat mu ne ñi jullit yëpp ñëw fekk si ko si soxna si taan nañ ci teen ba lañ jëm pour sàkku fa euh, wér ak ak gudd fan ak mboolem jullit yi rek di leen ñaanal yentamit seen tele bi yàlla na jëm ca kanam ci fan fan nga fan nga jóge man jàmm gan laa joge waa dayre bii laa àndal Kër Mbaye Fall maa ngi jóge jàmm gën guy ko jëm Kër Mbaye Fall ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax jàppal nan ni may teket daaj taatanta waa néegi te waa ñu sungaat fal bekkoor buur yàlla tawal walangaan mbooti ngoox mbottay gor bu dég ya deeta mooy kañ buur déetil bàyyi saw taas ndax man baas maa ñi tey gariti muusa njammi buur yaa mu ñàkk yow mu ñub taal muñ aw naaj say gaañ yar nga tekki yaaw teg jigéenu tey jii say muuraay xaarum sedd mbaate am njaan mbaw tàngoor yaay asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyee di ngi fii si bi ñoo ngi fekk suñu benn mbokk taalibe bi nga xam ne ñoom ko laaj ay quelques questions yoo xam ne maanaam liggéey barab bi nan la demee waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu barab bi de moom sunu taxawaay fii moom liggéey ahlu tarbiya la daayru tarbiya wa tarxib li kulli man yaxtamu bi xidmati seexal xadim mooy taxawaayu barab bi ñooy taxawu barab bi muy dongo yi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara yi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko tërbiyee ak di fa jànge ba mokkal mu tërbiyee leen wàcce leen ñoom la dénkoon liggéeyub soxna jaare bii li aju ci poroxaan ak li ko wër lu mel ne barabu soxna jaare bi ak jumaa ja ak teen ba euh, ak lépp loo xam ne ak kër soxna jaare gi nga xam ne ci la ñu waa kër Serigne Touba yi loolu daal mooy seenub liggéey dañ fi am ay fan nag daanaka dañ fi am juróomi fan yoo xam ne taxawu gan ñi rek ak di leen gunge bañ am seenub siyaar niñ ko bëggee moo ko tax waaw dayre bi nag dayre ahlu tarbiya wa tarxib li kulli man yaxtamu bi xidmat seexal xadim la tudd ndax ñun taalibe Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha lañ woon yu tarbiya ba wàcc ñu sosoonub sunu dayre bëgg koo jàppale ci daare alquranul karim yi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha doon liggéey ci Touba nga xam ne dundam gépp ci alquran la ko def te mu mel ne bokki jullit yooyu bokki taalibe yi dañ koy door a xam waaye booñ ko xamee ba léegi loolu yàgg na ci ab liggéeyam ah dayri boobu nag daara jooñu nag moom la waa dayri bi di saytu di leen dimbale ci seeni i yitte li nga la ñu yittewoo ca daara ja lu mel ne dund bi ak la nga xam ne tout tànk yi mënuñ koo ñàkk loolu moo waral dayri bi sëriñ bi wóolu leen ba jox leen liggéey bi ginnaaw loolu liggéey Porokhane bi ci la ñu dab sëriñ bi yëkkatiwaat liggéey bi jox ñu ko waaye la ci gën a yéeme mooy dayri bi bañ ko sosee dañ ko yamaloon ci ñun donc bañ ko yox yittee sëñ bi wax ko problème wax ko dayre bi niñ ko tuddee ne ko dayre dongay tërbiya yi sëñ bi daa téye turwa ba mu am ay fan mu daal di soppi turwa def ko dayratu tërbiya wa tarxiib li kulli man yaxtamu bi xidmati seexil xadim te boobu nekkagul woon Serigne Touba kon ba mu ba ba mu nekkee Serigne tubaa ci ci saayir yàgg na ci ci bàttin yàgg na day ne door a nekk Serigne Touba ci saayir mbooloo di ko door a xam kon yàgg na bu yàgg ndax lii li ma lay wax 2007 la woon. waaw boobu ba léegi ñu ciy dox ba liggéey bi dab ñu mu yaatal ko nag képp ku bëgg liggéeyal Serigne Touba boo boo boo ci bëggee bokk boo ñëwee ci ñun ñu ànd liggéeyal alxuraan karim ak soxna jaara waaw fii moom règlement bi boo duggee rek daanaka da daal di xam lan mooy règlement bi ñu ngi koy tàmbalee ci li nga xam ne moom la ñu sariya sant muy xaajale góor ñi ak jigéen ñi biñ ko defee ba pare ah ñu fexe ba kenn ku ci nekk boo ñëwee mën a gérer règlement bi mooy góor ñi féete nii jigéen ñi féete na le ñu siyaare siyaare bu sell génn dem te bañ am den lu ñu def bu dee koddaay yi ñu joxe defar nañ ab wut nañ ab oto ci ba yi war faa yam waaye léeg-léeg dañuy xër wala ak ñàkk xam ba yegg si koddaay yi fii lañ koy dajale yan waat ko yóbbu ci oto ba waaw loolu mooy dëgg-dëgg programme mu dayre bi waaw ñoo ngi jéggalu bu baax nag <laughs> waaw Tawfekh Production Tawfekh ak yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw ci barab bi fekk ñu fi ñuy ñaan suñu borom defal leen Tawfekh gën leen a yokk ni mu yokkee liggéey soxna jaara bi bañ bokk ko ñun ñëpp da ngeen yàgg ñu fee fekk ñu yàgg ko ànd defal leen taw feex ak xéewal barke sëriñ département bu baax xam nag am na fu mu commencé waaye amul famille ci béréb béréb soxna jaara bi wax dëgg yàlla kontaan naa bu baax sama xol seet métti bii ndax damaa amoon benn soxna jaara suñu borom yàlla def la moo tax soxna jaara bu ndaw bu ma gis ci àll bi sax sama xol am na lu mu yëg soxna jaara ah ñun daal dëgg yàlla suñu contentement daal sama doom am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem daal ma la ko mën a waxee waaw. fan fan maa ngi jógee dëkk bu ñuy wax Alluki Alluki dëkk bu ñuy wax Alluki fa laa jógee. Touba nga am si euh, ba nga duggee si barabu Soxna Jaar ban yëg-yëg nga sama xol sedd rek guy sama sedd guy daal wax dëgg yàlla daal ba daal li ma bëgg wax lépp daal mun ma ko wax ndax xol sama xol sedd na daal. lan ngay lan sa sa mbokk soxna yi lan ngay conseillé sa mbokk soxna yi. waaw ñu jéem a góorgóorlu rek jéem a mel na soxna jaara bu sa ndax soxna jaara li mu am du ko jànkonte ba suñu borom yàlla may ko ko bépp ndaw bu dugg néegu sëy na jéem a góorgóorlu jànkonte du mën a egg fi soxna jaara mu jéem a góorgóorlu daal xam fu muy teg tànkam ci rek ci yoon siraatal mustaqim ba yàlla may ko daal ndam ci sëyam waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen siyaare dëgg yàlla macha allah xol bu sedd rek dëgg yàlla chaque année dañuy ñëw di ko féete di ñaan fekke ko ak tal ko chaque année rek suñu yàlla mayee wér ak fekke ñu koy ñëw chaque jour di ko féete si ndax yëg-yëg rek dañ fi am ak xol bu neex ñaan yàlla yàlla taas ñu ci barkeem jox ñu ci ay xéewalam yokk ak leeram dëgg yàlla mbégte rek lañ ci ànd ak sant waaw yokkute rek lañ ci gis Touba lañ dëkk nag euh, bi ngay bi ngay ñëw si yoon bi ban jafe-jafe ngeen am ak ban ndax ndax yoon bi méttiwul non non alhamdulilah ñoo ngi sant bu baax ndax bu ci metti amee tamit dañuy xool borom lam dajoon moo gën a metti li ñu daj moo tax même bu ci mettit amee dañ koy sant yàlla ànd koog fierté ak mbégte tamit moo tax du metti lool lool. lan ngay lan ngay conseil sa sa mbokk soxna soxna yi. waaw ñu xool ci moom rek di roy ci moom comme mënuñu ko dab à sant pour sant ñu xool lu ëpp ci ay jukkoom ak ay qualité am ñu koy jéem a roy di ko def xam naa soxna bu xool ci moom daal doo juum. ba yaa ngi ñaan am soxna jaara bu dee amoo ko sax <laughs> am soxna jaara moo ngi ma àndal. kon yàlla ko soxna yàlla na ko yàlla na ko suñu borom def soxna yi gën a baax soxna ay weer ab xaayaan la yor tabu géej taataan ay waameem fu nekk lay taaj janjab joor bun sàngoy nelaw ma ngay joor ay rakkaam sun booyoo ku ney seral naa barab bi lii mooy koddaay maam jaara yi ñuy jox gone yi ci maam jaara yi jigéen ñi di ci barkeelu ñu leen koy yóotaat di leen ko dajal bee siyaare beeg toppatoo nit ñi di organiser nit ñi loolu la ñu jëwriñ Mountakha la tege fi léegi dañoo gis ni maanaam bu euh, ñuy laaj maanaam bagage yi nga xam ne dafa ñëw fii pour ñu ñu koy sànni si camion bi bagage yi fan la jëm ak ñan ñoo xam ne ñoo ñoo koy ñoo koy jëfandikoo. bagage yi. ci daaray maam jaara jëla jëm murid yi ñoo xër di ko barkeeloo ñu koy yottaat xale yi jànge ci daaray maam jaara bu sëcc fa la jëm ñu ngi koy yóbbu fee ci seko bi bu noppee ba ba kii ñu seet yi yiñ ci ñawal xale yi yeneen yi ñu jox ko maam sëñ bi daal moom noonu la koy fa ñu ko yabal ñu koy yóbbu ca ca camion bi di ko yóbbu fee ci seko bi ci la ñuy yóbbu barkeelu yi muy lii di koddaayu maam jaar maam jaar yii moom lañ ko ñeneen ñi ko ci barkeelu bul soog xeeti kàndang ak xaal dog bul soog yow yaa tax masin ya fay riir kur yey dóor gaa ngi réewi biir baan ñëw nan daaw réew yeppay wari fafal naaw Espagne keer yaa xootin sa gan ñi ko daay def ba yaare kir sa xeeti takkaay jox ma moor yaa mat ndey yaa du mat baay yaa mat maam yaa mat waay ma tudd sëriñ maam yaa mat giir say jagle waral ba Tuubaa def am réew réew maa googu sa tey too goro leen soow leen yaa cër ngor jigéen ñëwoon neen ay xar baax waa mbàkkee ñi teg gi tey xaas bin jil ndeer seetal tey li xew poroxaan ñéppay naan kaas yaa lay wëndeelu tey foor fees tey fuur sun yeewoo ba soxna yi saaf ñee ngay xiin yoor yoore ñu waasi jëntuur waasintuur tey baasee xew ak ceren meew lim nu njaay dën daasi feew ñu xin mu mën jën yaa ngi mu nuy tegab ceeb saf kuy naaf roof sombaat mbël jayak coof muy fiiriir ndar jaa ngi fa waa ak sampaat ya fay jalaañoo ñiiw ñiiw léeg wa barakatu mbokki murid yi mbokki taalibe yi leen sant bu baax di leen gërëm waxtu wi daaw deewoon nañ fi yàlla dimbali nu nu fekkoon waxtu wi nu teewaat barab soxna jaara bii ah ñun nag li ñu man mooy bu ñu wax dara dañuy sant Serigne Mountakha Mbacké ñu fi nekk Serigne tubaa di sant Serigne Amdi Fall Modou Mbende di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. ah ñi nag gis nga bi ni mu nii boo dee xool jigéen dafa war a gën a góorgóorlu ndax soxna si lim am may ñaa ngi dale bu fële di rang ba ñëwal seen bopp fi teen bi par benn benn dugg góor ñu gis ko ku ñëw dugg kon jigéen na góorgóorlu ndax jigéen am wàll mu war a am doom ju baax te doom baax nag mooy ah topp sa ndigal borom kër bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi loolu moo lay may lii kon ñun liñ am mooy di sant sunu maam ju baax ji soxna Jaara Buso ndax soxna si kat dafa liggéey liggéey moo ko may li mu am duddoon di nelaw rek lii du ko am mbooloo maa ngi nii jumaa jaa ngi nii teen baa ngi nii taalibe yaa ngi nii di duyoo ko rombo ko dugg ko génn kon ñun amuñu ko sunu maam ji ndax lii yombul wër ba àdduna daj kenn rek moo fi am màggal gi muy soxna Jaara Mariama Bousso kon noo ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla sëtam yi yàgg fi te wér di ñaanal sëriñ Muntaxa bu baax ni ma ko waxee ndax yàqu ci dara di ñaanal suñu jëruñu sëñ Moussa moom sëñ Basiru di ñaanal soxna Bali Muntaxa mu mu yàgg fi te wér ñaanal murid yi ak taalibe donge yi ku fi ñëw yàlla nañu dimbali ñëw ci bismillaahi rahmaani rahiim delluwaat ci alhamdulilahi rabbil alamin kenn bañ a manqué sëboor si tamit nañ daw ndànk dal ndànk na sëñ Fall daan wax na nikk téye téye bu dëgër jàkk ja bu ne tekk nga ne tekk bu ne yaa nga nu yow code boobu ku koy dawale rek doo am benn jafe-jafe kon yàlla nañu yàlla dimbali ñu teewaat ko jàmm ak salaam barkeb Serigne Touba doole maam Cheikh Ibrahima di sant nag yéen waa Almouride ndax yéen amuñu seen fay waaw Tawfekh waaw Tawfekh production ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax liggéey ba rafet na sel na te ku leen di jàkk rek xam ne ay murid ngeen télé bi yokk bu baax a baax baax baax barke sëñ Tuubaa di ñaanal directeur bi di ñaanal personnel bi yëpp ñu teew ay déwén déwén barke sëñ Tuubaa barke maam Jaara Buso ñoo ko dëkkee euh, bi nga xamee gën nañ fi ba dem teen bi ñoom fi nañ ko bàyyi woon waaw léegi soxna Jaara mii nga xam ne moo waral ñuy ñëw di ci barkeelu moom fi la ko fekk waaw soxna Jaara tam bi mu ñëwee ci barab bi euh, dañuy wax ni am na fi at am nañu wax ni matu ko histoire nag moo demee noonu ndax daa daa am ñoo xam ne bu ñuy compter dañuy compter ci miladi yi am ñoo bu ñuy compter dañuy compter ci hijri yi loolu lay waa ndox mi de fi ñu doon lii may ah, kenn mënu la wax day saafara dara tey kenn utalu ko lu muy saafara waaye doomu aadama bu ci nekk saafara na ci lu bokkut lu ci moromam saafara waaye nag identité wuñ foo ko ci day faj lii day joxe lii. day joxe le loolu amu ci moom waaw waaye waaw waaye waaye doomu bu ci nekk andi na fi aajo ju bokkut ak moroom aajo ju mu andi faj ko ci ndox mi waaye nag loolu lépp bu jàllee ñoom barkeelu ngir des ci soxna jaara moo ne tax a jóg ku ko laal moo tax mu barkeel mi ngi mel ni sam-sam gële ci madina ci màkkatal mu karama ndox mooma bu ma jógee kenn mënu laa wax day sa day day saafara dara waaye nit ki bu ko andee dana ca saafara jàngoro boppam pas ca pas pas boppam te dana ko jariñ waaw loolu la ndax moom euh, jamono yu yàgg ya ku ne xam na ne teen a nekkoon ci dëkk yi ñooña ban ko dëkkee ba dem wax ni soxna Faat di ja mi nga xam ne mooy taaw Serigne joxoon na ndigal Serigne Modou Mamoun moom taaw Mamoun taaw Cheikh mu sekkar teen bi ñu di ci barkeelu boobaag léegi nag ca lañ ci dara barkeelu gaynde nar jawoon jay suraa faf dim kuuy nooy nepp ne am tolaabiir bambay guur jeewal ne gisul kemam daam kaw ak suuf teewoon sax ñu laaj la gornoor gis bay diir ay soldaar yu guddi meeteel ñoo dar seen xeef ay xajul ci soldaar